justice digganteem ak moom ni mu xajamee jamono ji lan lay doon. wala mu ne euh, man du ma du ma yedd euh, Ousmane parce que Ousmane du du du ku ñu yedd Ousmane responsable la. conseil. dinañ waxtaan nag. Mhm. waxtaan nañu ay waxtaan. gisee nañu xamante nañu. am na respect ci man am naa respect ci moom bari na lu ñu waxtaan xam naa ko. Mhm. problème ak justice. ndax dina wuy ji wala du wuy ji kooku responsabilité personnelle am la bu ma ci jéemee wax rek ngoonte ma weddi sama bopp ci li ma waxoon ci dialogue bi su ma mhm. neexee dem su ma neexee du ma dem mhm. dem bi am na lu muy jural ñàkk dem bi am na lu muy jural dialogue bi dialogue dem la dinaa ci dem moom tribunal mooy seet ndegam dina ci dem wala du ci dem am na ci sañ-sañ ñaata yoon nga dem tribunal ñëwuloo danga ko fàtte tribunal bi am yaa bañ a ñëw tribunal bi am nga tukki tribunal bi am nga feebar tribunal bi am ñoom nag bu ñu la soxlaa ñoom mën nañ la jël si nga ñëw ci tribunal bi. Mhm. parce que jëli nañ nit indi ko tribunal jëli nañu nit ak ay perfusion ak feebaram. ak ay médecin ñu indi ko tribunal mu vrai. woon comme lu ne am na fi da ngay xaar ba ëllëg rek seet lan mooy am. mais li mu indi ci dëkk bi comme conséquence yàq bi. nit ñi faatu. lan moo indi. maanaam procès bi am jamono ji diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr. conséquence yi metti na loolu ci Sénégal. kañ la ci nit ñi deewoon. bërki démb rek am na ñu si deewaat yàggul dara. Ah. lu ko jiitu am na ñu deewoon en mars deux mille vingt et un. waaw ah, mars deux mhm. fukki nit ak ñeent ñoo ci dee. waaw mais loolu dañ ko nar def rek ak comme deux cent milliards yu Mimi Touré. bañ cee wax perte de profit. dafa war a leer. mais am ku tooñ. am na lu xew mënuñu ko bañ a analyser. Mhm. bon dem nañu topp nañ ko baax na demul mais après procès am na mu dem woo nañ ko mu dem non. ci mambay bi. waaw mais woo nañ ko mu dem. Mhm. woo nañ ko tribunal woo na ko mu dem. bi mu demee est-ce que am na kenn deewul. Mhm. donc. donc. moom mën na dem te kenn du dee mën na dem kenn dee ci moom la dépendre